madame la ministre ñi ngi lay nuyu di la masawu coono yàgg mboolem délégation bi nga di nuyu monsieur le di nuyu préfet di nuyu sous-préfet di nuyu monsieur le maire di nuyu itam mboolem kilifa di nga xamante ne bii ñi ngi fi te sëñ Abdou Lahad Ka lim leen léegi kon du jaar ma ci jaaraat waaye mën naa ne yoon wépp teew nañ fi tey jii ci ndigalu sëriñ bi di la tertu di nuyu mboolem structure jeunes yi nga xamante ne bii itam ñëw nañ ànd ak yow di nuyu mboolem ñi yëngatu ci wàllu politik te tey itam mel na ñoom ñëpp dikk nañ ànd ak yow ci ak bennoo et dans l'unanimité maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn. di la dalal nag ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha li sëñ Fallou sëñ Fallou Galas mi wax léegi biir ci guddi lool lañ ma woo sëñ bi woolu ma dama dama bëgg ñu dikk toppatoo ma sama gan googu yi loolu nag foog naa ni yitte la te xéewal gu la ci yow ndax dem ba Serigne Touba jekki ba waxtu woowu xelam di xalaat ne war nga ko seet si muy woote di batale ci yow loola foog naa ne dara gënu ko rëy loolu nag baaxuk sëriñ bi la ndax noonu la mel ndax képp ku jóg jëm si ki sëriñ Tuubaa rek am na wàccuwaay bu mu lay jox ndax moom moo fi nekkal sëriñ bi boo gàttee xel sax da jàpp ne moom ni mu la def def ko kenn fekk ak ma li nekk ci moom moom la lay dellu li nekk ci moom rek lay joxe def na loolu itam ndax dëkk bi yitteel na ko ndawi dëkk bi yitteel na ko ndax moom mooy Serigne Touba Serigne Touba di ko sàmm loolu kon li muy sàmm ndaw ñi dañ cee bokk te mu fas yéene kenn du ruur bëgg leen a jiital ñoom ñëpp ba ñu jof si ci kanam Serigne Touba kon bu fekkee dangay jóg. di yëngutu ci loo xamante ne bii njariñul ndaw ñi moo ci nekk njariñul dëkk bi moo ci nekk kon loola moom lay jàpp ne moom nga ko defal def na ci te itam ndax digganteem ak président de la république loolu duma ci sori ndax lañ ca war a wax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne waxal na ko boppam bi fi président mu jiyee la troit mu dem ba ne ko dénk naa la Serigne Touba. président ne ko damay ñëw di feddali sama taalibe di feddali sama doom ci yow di ñëw di la sant la si Serigne Touba kon diggante bi tax na ba képp koo xam ne ñaa ngi jàppale président boo jógee jëm si moom dina am wàccuwaay boo xam ne moom la la kon yooyu yëpp benn bu ci nekk jar na tax na mu def li mu def moo tax tey ji ñu teew fii ànd ak mboole mbokk yu ñu àndal ak mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi ngir tatagal la tertu la jëfe loolu nga xam ne ndigal la ci ñun wax nga ko ci biir si biir wax wowoon nga ma ngir maslaa ak rafetal ma bëgg ca loolu waaye nag bi ma sëriñ bi joxee ndigal moomatuma sama bopp moo lépp lu ma jàppoon dama ko bàyyi dikk tey teew fii ci sawet di la dalal bu baax a baax ci dëkk bii di Touba te maire bi wax léegi ci tur dëkk bi wax léegi ci li nga xamante ni bii itam mooy li nga xam ne moom la ndaw ñi yittewoo mu ci am ci yow yaakaar lool tàllal loxo fasku ku yéene ànd ak yow nga am ci loo xamante ne bii lu rëy la ndax tey mel na ne fu ndaw nekk dëkk bi rek joxante nañu loxo ànd ci ak yiw ci ak bennoo dikk jàppale la ci li ngay def kon loolu itam na nga ko bàyyi xel ba jàppale la ndax bu ñu xasee bennoo rek foog naa ne liggéey ak ñoom dafay dal di yomb di la xamal ne sëriñ bi mu ngi lay ñaanal bu baax a baax di rafetlu sa jéego yi nga xam ne moo la indi ba fii di ko rafetloo noonu jéego yi nga xam ne moo la yóbbu woon ba ca ci waaw nga nga njëkkoon a jaar itam di ab dëkkam ak mbooleem kër diine yi nga jëm yëpp te fu ci nekk di ab dëkkam di rafetlu jéey yi nga xam ne seqi nga ko wër ko ci biir Sénégal dafa fa dem fu ne ak njabootam nga fay fekk loo fa def lu ne kon day mel ne moom nga ko defal di la xamal ne ñi ngi rafetlu liggéey bi ñi ngi koy topp ñi ngi koy suivre ñi ngi gis itam action développement yi nga xam ne moom lay àndal ñi ngi gis action citoyenne yi nga xam ne moom lay àndal mel na ne kat lépp kon mi ngi rafet te li mu wax nii léegi sax man seetlu ma ko woon day mel ni yoon bi kon moo yoon bu njëkk ñu jël ministère bi déng ko jigéen kon loolu benn responsabilité nga am ndax amoo droit def leneen lu dul li ngay def muy réussir sa mission loolu nag ñu ngi la ci ñaanal yàlla di la ci ah, xamal ni aussi des na la ci accompagner te lépp loo xam ne suñu wàll la ci bu soobee danañ ko dox en tout cas nga xam ne ñii nga fekk fii ci dëkk bi moom. muy ñi politique ak ñi politique ñi nekk ci association yi ñi nekk ci daayira yi ñëpp xamal ne loolu moom amul ci benn jafe-jafe te tey dangaa ñëw ki dëkk boo xam ne dafay dëkk bu yomb a liggéeyee ndax ñu bari li ñu xamut mooy ci biir Sénégal amul benn dëkk boo xam ne gën naa organiser wu ndawi Touba wala jigéeni Touba ndax koo fi gis muy dox rek bokk na ci ab daayira bulbutiku bokk ci ak mbootaay léegi aussi xale yi ñëpp bokk nañ ci ay association nit nag bu fekkente ne bi am na loo xam ne tënk na ko moom ak jublu am am lu mu bëgg ñu yar ko jàngal ko mu am kilifa kooka neex naa dal kon na ngeen leen gën a jàppale na ngeen leen gën a geesu te xam ne fii daal dab yi fi nekk muy ndaw ñi ay dab la yoo xam ne raxas nañ ko